li nga ma wax li ma laaj def ma neex. Ah. parce que dama topp ci média yi à chaque fois suñu waxee ma ne leen Sénégal dafa am xiif. Mm-hmm. xiif am na fi parce que dafa am benn rapport bu génnoon en deux mille vingt et mm-hmm. organisation mondiale de la météorologie moo ko génnee woon damay bëgg toujours di ko fàttali. Mm-hmm. rapport boobu dafa ne woon lu bu ñu deful attention d'ici deux mille trente lu toll ci cent dix huit millions d'Africains dinañu dund li nga xamante ni mooy ndóol. ak xiif xiif googu nag man dama doon wax à chaque fois que euh, certes euh, Corne de l'Afrique moom dund na ko ba euh, Nations Unies ak ñëpp mhm. reconnaître ko wante nag fii ci Sénégal ñu ngi koy dund mhm. parce que li nga wax dëgg la bu yàgg ba mhm. dañu amoon euh, ndékki am añ am reer am njogonan ah léegi da ngay gis ne euh, ñun ñi dañuy débrouiller wu pour lekk mën na am sax benn yoon ngay lekk ci ci ci bés bi kon loolu mooy xiif xiif am na xiif bi experts yi doon wax ne dina am am na kon bu ñu jëlul suñuy matuwaay comme ni nga ko waxee mille 2030 xam nga soreetul kon bu boobaa yaakaar naa ne ki doon lekk benn yoon ci bës bi benn boobu dina ko të benn boobu dina ko të du amati lu mu lekk ñun environnementalistes yi ñooy wax ci suñu jargon après la pandémie sanitaire mhm. on est en train de vivre aujourd'hui ce qu'on appelle la pandémie alimentaire mooy xiif googu ngay wax mhm. effectivement dafa am